doo ko yemaleeg dara ci njabootu sëriñ Touba te soxna Kine Mbacke Serigne Abdou Lahad mii toog wax naa ko ni ko Mbacke bari na ñuy ñëw ci yow dañ lay jéem a fay si bor waaye lebal waaye kenn ñëwul lebal si la ndax ku ànd ak yow soxna Kine sa jikko rek la ànd ak yow soxna Kine du tànqam lu kenn soxna Kine ay waxam bariwut soxna Kine jëfam rëy na macha allah. waaye lu mu war a jàppalee doomu aadama ci réew mi rek mi ngi koy def te du bëgg ma sàmba ak ma dem ba déggu xam nga à travers les médias yii toog tey jii ñii dañuy jël loo xam ni su ëllëgee dañu koy teg ci télévision bi ki ne ci réew mi di ko gis ki ne bitim réew di ko gis ñëpp di ko gis kon loo ciy wax war naa doon lu leer waaye soxna Kiné Mbaye Dia ñi ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ndax sa digganteeg soxna Kiné mii kat dara dox ci samedi la ak dimanche di nuyu nag honorable député di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla ko suñu borom may deuxième mandat bisu sëñ Abdoulaat nag lu ci waaye ñaan rek suñu borom mën na ko def waaye ajaratu nday Njaay jóge ba États-Unis di goro soxna si bokk moom lépp soxna si mi ngi koy sant ak ñi mu àndal ajaratu wuli yaxya lébu ndakaaru di borom ndakaaru di kenn ci kër Serigne Touba ànd ak moom ak i doomam ak i rakkam ak i xaritam soxna si nee na mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yaag ñii nga àndal mbooloo mi soxna soxna Kiné nee na gis na ñëpp soxna Kiné Mbàkke nee na gis na ñëpp nee na gis na ñëpp ndax nag fu waay toog soxna si bu jan ak yow boo ñëwoon ni ko Mbàkke mu jaar saw sant kon soxna si xam ne ñëpp iyandahum yadi seytaane axrajani wajjahtu wajhi li rabbin la muyna la maatida ibis lan waari wal fitane wajjahtu wajhi li rabbin labtida alo ibis lan waari وجهت وجهي لرب لا انتهى له مع السرافية أنا شعر أزرفني وجهت وجهي لرب جل عن ولد ما دخاف لي أن الأشياء لم تكن وجهت وجهي لرب جل عن هرد ما انسرافي له بالجسم ولا تنين وجهت وجهي لرب جل عن مثل بخدمة لابن عبد الله ذي سنن بخدمة لابن عبد الله جعل بما نهدى ودعا فيما نكفى من المهن فكل من خسه الباري بخدمته فلا يلاقي سوى البصرى ولم يهن ومن تكن برسول الله قمته مستيب الصدق والإخلاص والحسن فلا يخاف ولا يرجو الورى ثمنا الوقاية تغني عن الكنن وما يصل سوى الماهي وسيلتنا فسيره عند أهل ذلك الغتن ومن تكن برسول الله نصرته انت الخلود في جامعة تلني بين نصرت بأبخي خدا وطري والمجاور في أهلي وفي وطني بيودافيون هن مكرنا سلوان سر نجينا Allah ge be xam ngeen comme ñu dagloo tuuti xam ngeen ni comme télévision yi fi ñëw yëpp dañoo bëgg a yeeweeku moo tax nag ñu bëggoon a tëj caméra yi waaye tëjuñu màggal gi bi ñu xëyee suba soxna muslim ma ngoog may leen ko mu jàll nguñ balaay sa maa ngi lay siyaar yéen ni ko jàppee nii nii ma nand naa ko dee leen ma wax iyo soxna muslim Mbàkke ngoog mais booy jox ma affaire bi mais du loolu c'est que xarira bi dama ci naan ñaar la te sama biir bi xaw ma xarira la la xaw ma xoroor la la Mbàkke Balla jërëjëf fii ba ba ñuy xëy suba fii ba semaine bi di jeex bisub Serigne Abdou Lahad la te bis bu nekk it bisub Serigne Abdou Lahad la ndax yoonu murit am na loo xam ne bi Serigne Abdou Lahad ñëwee fi la ko fekkoon waaye bi mu ñëwee jël xalifab Serigne Touba gi am na lum ci dolli loo xam ni ba léegi boo waxee yoonu murit xel yëpp nekk ci Serigne Abdou Lahad bàyyi kii toog ñi ngi gërëm nag la télévision yi nga xam ne ñoo fi ñëw ñëpp en commençant par la TFM la RDV ak ban ak top rot ak yeneen sit internet yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañ fi ak DTV yéen nag seen liggéey ci kër Serigne Touba amul pertement ndax sëriñ tubaa lu ko waay lebal mu fay la soxna Kiné Mbacké bu Serigne Abdou Lahad mii nag bis mu taxawal fii da koo teg ci ndigal ndax ñoom seen lépp ndigal la ndax ndibal nag ndigal nag caabi la su ëppee du ubbi su manqué du ubbi waaye moom ñu jox ko ci ndigal mu taxawal ko fii ci région di Cap-Vert ko fii ci ndakaaru te nag li tax màggal gi jeexagul mooy alxamis ajuma samedi dimanche xalif général Serigne Touba ndakaaru gii lay nekk te ba mi ngi mbiir ndakaaru te boobu yëpp nag dañuy ànd ak moom muy bisub Serigne Touba te Serigne Touba boo ko tuddee faaw nga dégg Serigne Abdou Lahad Mbacké Serigne Touba soxna si nag mi ngi sant ñi fi ñëwoon ñëpp mi ngi gërëm ñi fi ñëwoon ñëpp. képp koo xam ne ñoo ngi ànd ak moom bis bi soxna si mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm macha allah sëriñ Abdou Lahad nag boo ko xoosee ren baye boo foo mën a nekk bu déwénee ak lu la mën a daal baye boo nga yaakaar ni da nga am góom kon nag lu waay lebal sëriñ Abdou Lahad bu déwénee da nga gis li mu lay fay soxna si taaliba yaa ngi nii soxna si sa mbokk yaa ngi nii yow nag soo wootee boo sant woon Mbàkke sax sa jikkoy bopp war naa tax foo nekk ñu fekk la fa maam joo am yaaram la maam joo am wàlliyu la waaye nag sa jikko bopp moo tax ku ànd ak yow ren bu déwénee ku mu xam ne la kan dem ci soxna Kiné Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad fii nga nekk nag fii nga nekk nag ndakaaru la ndakaaru nag ñi fi nekk xamante nañu nag dama ni ndakaaru dafa changé ndax daal la coquette yi jigéen ñi xam ngeen li ma wax ndax chinois yi waaye ku ci sol original boo doxee ci autoroute bii boo defee ñetti pas da nga xam bi original ak original yaw nag da ngaa sant Mbàkke kii di wax nag kii de wax nag yoonu murit amel nañ ko njukkal ndax sa ñamel loot Jóob Dagana waaw damay bañ sax film gis nga alaaji mii di wax nee na alaaji Lamine mii di wax nee ah, loolu nag moom day na ci ma ah, waaw nee na tubaar fakal la déedéet loolu gane àddina ah, kon sallallahu alayhi wa sallam nee na keroog ba gane àdduna nee na sëriñ Amad Lamine Diop Dagana mi jur baayam nee na moom la ko sëriñ Touba toppatooloon nee na moo toppatoo sëriñ Abdou Lahad nee na mu doon léppi sëriñ Abdou Lahad nee na léppi sëriñ Abdou Lahad nee na la ci ëpp nee na sëriñ Amad Lamine Diop Dagana mi jur baayam moom mii nee na saar yamu tëfli woon ci ay noppam moom la ko sëñ bi jàngaloo woon nee na tafsir xayaar mi nee na kuy ñambaas doo ñambaas nee na sër bu mat sëkk nga nee na bàyyi bàyyi naar Jóob bi nga xam ni mooy woy juram sëñ rek la toppoon sëñ Mat Lamin mi ko jur moo njëkk a tëfli ci nopp sëñ Ablaay nee na kon am nga kàddu ci bisbi kon kon ngeen tàllal loxo yi soxna si def naan ñi dem fee ca xar bisimilah nañ tàllal loxo yi tàllal leen loxo yi tàllal leen loxo yi waaw dañuy dem ca xar dañoo jiitu ci xar yi dem xar yi rek yi dem ca xar ya <laughs> ah ah daayira bi soxna si nag mi ngi nii nee na sant na leen bu baax a baax nee na gërëm na leen gis na nee na gis na seen liggéey gis na seen taxawaay nee na seen taxawaay rafet na nee na seen toogaay bii nee na duni guleel de nee na moom bi mu nekkee tubaa ngeen fekku fa muy màggal Sëñ Abdou nii rek ngeen ko doon dafe nee na ngeen am fa ñett fan nee na bis buy def màggal Sëñ gi nee na ca Touba nee na di ngeen fa ñëw am ak moom ñetti fan ñeenti fan nee na doogay waññeeku nee na kon suñ koy defee ndakaaru nag nee na ngeen ñëw nee na kon du wax nee na day ñaan ci maamam sëriñ Touba nee na kenn ku ne yaa xam sa soxla yaa xam li ci sa xol ak ni ko bëggee nee na yàlla nañu ko sëriñ Touba defal amiin Mbakke nee na tamit li gën ci ñun nag ndax ci yéen laa bokk nee na yàlla nañu àggale na yoon ci barkeb sëriñ Touba.